tey dañ fi pour euh, installer officiellement le comité technique national de suivi du secteur de la boulangerie. Depuis un an, depuis avril 2019, le ministère de mu acteur du secteur de la boulangerie euh, madame boulangerie Nyom Senbo, seen De farine consommateurs vraiment pour xol nu ñuy def ba secteur boulangerie bi gën a ñoom léegi képp koo xam ne da nga boulangerie am na procédure bi ngay jaar ba ñu autoriser la ba nga mun a euh, ba nga mun a ubbi sa boulangerie dinañu xool fi nga koy def hygiène bi dinañu xool salubrité bi dinañu xool ndax zone bi amoon na boulangerie wala amul boulangerie dinañu xool ndax respecté nga sa obligation fiscale donc am ay conditions yoo xam ne ko de sorte que n'importe qui mënatul xëy xëy rek dugg ci secteur boulangerie. agence sénégalaise de normalisation liggéey nañ ci benn norme boo xam ne euh, permettre nañu ñu xam léegi mburu bi ban spécification la war a am nan lañ ko war a composé ak nan la war a sax xëy na toll ci euh, ci ci ci ñu koy defaree de sorte que xëy na même ñun suñu service yi ak consommateur bi dina gëna mëna euh xam mburu biñ koy indal ndax euh, euh mburu qualité la waw wala déet benen bi moy procédure yi parce que procédure euh autorisation et déclaration bi foofu dañu jël euh gouverneur région yi ñoy ñoy saytu loolu léegi point de vente yi aussi dañ ko concerné la distribution aussi képp kuy dugg ci ci distribution mburu ah loolu am na condition yi bess war dañuy xool ndax am nga euh, contrat bu la lié ak boulangerie dinañ xool euh, bu fekkee ne point de vente la fi nga teg sa boulangerie ndax am nga autorisation ndax mairie autorisé na la ndax dem nga commerce intérieur parce que am na ay conditions yoo xam ne ne xëy na mën nañ ci dellu si yooyu yëpp dañ koy xool ba de sorte que aujourd'hui permettre tuñu benn boutiquier mu jaay soble jaay eau de javel jaay mburu loolu moom vraiment taxaw nañ ci ne loolu vraiment dina dal beneen bi comité comité national bi nga de manière régulière comité bi secteur boulangerie bi xool nu ñuy def ba euh, améliorer ko bu bu aussi ñu comité bi ba ñëpp ci wax seen xalaat. police gendarmerie engagement appliquer lépp lu war réglementation bi

ba fexe ba lii ñu liggéey pendant ci ay weeri weer bu mu naax ñu fexe ba appliqué ko ku ko appliqué wul ñu teg la daan su am na ñoo xam ni ko appliqué wuñ ko parce que xamuñu ko ñu xamal leen ko ñu ko ñu nga xam dañ ko xam ba noppi am ay intérêt yu ñuy défendre yu nga xam ne bokkul ak intérêt général ñooñu ñoom dañ leen war a sanctionné na na état bi jël des dispositions pour sanctionner